yo. bu yàlla muuri woon kiiraay yi jam ñépp xam ni yaay joojo waaye xaadim. mbokki njàqare daan nay de loo muy wax nii. waaw. saa woowu ak ñi nga xamante ni ñoo di waa kër xaadim rasul faaleen cosmétique et divers ñi ñooy liggéey liggéey bu am solo bile liggéey bu bari doole bile mbokki Sénégal rawatina mbokki li nga xamante ni ñoo ngi yeewu si dëkkuwaay bi li nga xamante ni moo di Diourbel seen jàqare daan ne dañ waaw ak bépp xeetu produit cosmétique boo woo am na fi leen daal mbokki daw si leen gaaw fii daal mooy dëgg-dëgg kër ga xéewal yow sama mbokk yow mi nga xamante ni da nga bëgg sa teint rafet lool sa kanam daal di leer nañ foo jaar muy necessité rawatina yéen suñu mbokki soxna naqari daanay deñ ay diw yu mucc ayib bien naturel ay dip yu mucc ayib waaw yéen mbokk yéen yi nga xamante ni da ngeen a bëgg daal fu ngeen toll di xeeñ yu neex am na solo lool taw sil file gaaw yi xeeti parfum yu mucc ayib waaw ak bépp xeeti parfum bu ngeen itewoo daal am na file yéen mbokk yéen yi nga xamante ni da ngeen a bëgg ay matelas yu mucc ayib am na file ay bassin yu mucc ayib ay tapis yu original yu rafet lool nag fii daal dara manqué wu fii ngépp ku doxantu boo yegg si file da ngay fekke ay ndaw yu seen liggéey lool soo yegsee dinañ la teeru tatagal la daal di faj sa njàqare ci anam bu mucc ayib waaw ci prix bu xéwale nag boo yaaxee sax ñu may la pooki place bi le nag muy nekk si dëkkuwaay bi le nga xamante ni moo di Diourbel marché Ndoumbe Diop soo yegsee ci piron bi dal, daal mën nga daal di jaar si numéro gérant yi le 77 570 72 45 77 463 70 78 mbokki njàqare daal dinay deñ ak waa kër Xaadim Rasul Falen cosmétique et divers ñi daal ñuy liggéey liggéey bu am solo bi lee mbokki dukki dukkeeg dangi dangi daal lépp ay xël la waaye lu leen jaaxal meles mes ñii daal lépp ñëpp la lu ne ku ne si kuy murit jugal sant ki tax nga raw ngir sun waa ji dem na ba ñëw waaw ñu ngi leen di nuyu di leen jaar yéen euh, internaute VF TV waaw yéen a si kër Xaadim Rasoul Far et Frère waaw ñu ngi leen di dalal jàmm bu baax egg si ngeen si daara ji waaw euh, ñun nag ñooy euh, Falen cosmétique et divers lépp lu jëm si wàllu produit cosmétique ak divers fii dañ ko fi jaay so soxlaa diw buy defar sa teint teint naturel am na les éclaircissants aussi am na ay tube ay sérum et tout ñu ngi koy jaay fii parfum aussi am nañ ko dañuy def parfumerie waaw euh, am nañ ay Nova ay Clive Kera ay collection Baccarat vanille yooyu yëpp am nañ ko fi waaw aussi dañuy produits divers en même temps dañ des soit euh, produits euh, concernant les fournitures de scolaires yooyu dañ koy def en gros am euh, matériel géométrique yooyu yëpp dañ koy def et tout voilà bon am aussi ay matelas dañ koy jaay matelas bassin tapis yooyu yëpp dañ koy def même ko lu jëm esthétique am nañ ko moo tax euh, ñun ñu ne euh, votre euh, séduction est notre mission ñun ci loolu la ñuy dox lépp lu jëm ci wàllu taar luy màggal jëmmin doomu aadama bi ak bërëb ba muy nekk ñun ci loolu la ñuy liggéey ci loolu la ñuy yëngatu ba pare aussi am nañ ay prix yu xéwale yu ñuy defal suñu ay clients waaw prix abordable boo fi ñëwee moom ñun nee nañ le le client est roi chez nous ñun dañ koy accueillir ci très bonne condition en même temps aussi euh, prix prix yu lañ koy def dal waaw fi moy wa kër khadim Rasoul Falen cosmétique et divers waaw am nañ aussi personnel bu bu bu bu bu efficace ñi ngi fi dañ lay accueillir waxtaan ak yow ci ci lu bari jaay la conseiller la en même temps pour que prochaine fois nga mën a ñëwaat voilà. ñu adresse ñu ngi ci marché ndumbe Diop. Diourbel boo ñëwee ba ci perron bi rek juste boo wootee ci numéro téléphone yi 77 570 72 45 wala nga wootee ci 77 463 70 78 waaw ñaari numéro téléphone yooyu boo ci wootee di nga jot waa Kër Xaadim Rasoul Falen cosmétique et divers.